bu Sidi Ahmed bu Moulay Si bàyyam di caatu Seydi Hadji Malick tukki woon ba ñëw woo ma démb mbégte lool ci waxtaan yi nga xam ñu ko def fii si Malick ñu ngi lay ñaanal yàlla jàmm bàjjan ku baax ku yiw ku am sutura ku xam li ko maamam bàyyam bàyyee bàyyi la jërëjëfe yàlla di gërëm nag suma imaam ngaa la ndax gañ naa ko gis waxtaanu tey bii ndey waxtaanu mu tombeek jamono soxna jaara àdduna lii xew tey jii ci lay waxtaan muy lan li xew cosaan la woon waaye nan la woon ak ñan la woon ak naka la woon <laughs> aminatu bintu wax bin yow yaa meññ yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmm jooju nag yàlla rus ko lool jox lu rëy waaye am na lu fi xewoon mooy maam aadama mi meññ ñépp moom kër bi yàlla sàkkee ko ci ban mais na am na ñu mu fa fekkoon bi maanaa ku ñu doon wax iblis coolu coolu yépp soxor ak iñaan yàgg na yàlla ci mbaaxam daal di ne iblis jaam nga waaye nag dama bëgg nga sujjóotal ma aadama mii mu lànk ne ko duma ko sujjóotal ndax man ci safara nga ma sàkk te moom yaa ngi sàkk ci ban kon maa ko gën yàlla na ko nag comme maa moom sumuy mbir la may bëgg nag ma koy defal mbaa ma dégradé bi maanaa ma licencié la mu ne ko ndokk ca loolu nag la ko yàlla na kon nag bi sikki tey nag désormais décret na génn la ci ci sama gouvernement Iblis nag jinne la du malaayika noonu nag mu xam ne comme yàlla nit ki boo ko liggéey danga koy fay mu xamal ne yàlla nag maa ngi dem waaye nag damaa bëgg nga fay ma li mu fi jotu liggéey ah booba salaire amut weccet amut dana amul mooy nag jëf mu am mu ne ko noo ko bëggee yàlla ko gën a xam mu ne ko man xam naa ne safara nga ma jëme jëmee déglu leen baax la nga wax kon nekkate li nit kii li ko yóbbu safara war a ngaa jàng histoire ba mu ne ko dinaa waaf ci digg mbedd mi wala ci digg gouvernement bi gàllankoor baare ci kaw kenn du ma fa romb ndeyjoor kenn du fa jaar càmmoñ kenn du fa jaar ci suuf kenn du ma jaar kon kay wër nga àdduna bi ñépp lay baare jaxasa seen xel ba orienté leen ñu ma def lu baax walla bu ñu defee lu baax tamit dinaa ba ca feebar danaa ko yàq ndax lan kon safara boobu duma fa wéet yàlla na ko ndokk waaye nag ba mu des ñu baax ñi nga xam ne tamit ñu ngi wii sama ndigal ñooñu nag ñoo topp Seydina Mohamed soxna Jaara xoolal Iblis bi ko yàlla génnee yàlla ne aadama àdduna bii boo fi nekkee mën na la teel a galgal mën na la teel a ba bas mission bi du àgg waaye nag ñëwal ci man ci àjjana nga toog fa yow ak sa soxna waaye nag jaar leen fu leen neex dem leen fu leen neex lekk leen lu la neex tufe leen fiiri leen lekk leen ci firi yi ba mu doyal waaye nag garab gii de ndokk bu leen ko laal walla wala taqrab hadha sajara allahu akbar nekkate garab gii nit bi ko yàlla wax naan yow aadama bu ko laal iblis dégg na ko xam na garab ga waaye nag muy man ma ne man ma xam nga diggante góor a jigéen yàgg naa def ay mbir fiiraa nga lu ne lay def kon na wàcc tase te lu ne mën na ko def waaye ku ne te mën ngaa yunu lu bon tam ñu defal la ko iblis ñëw na ajjana bëgg a dugg ajjana mu tëkku fan la mën a jaar kii gaar ja ajjana te ki gaar ajjana ñu ngi tudd merwaan bi maanaa bokk na ci mala yoo xam ne bi wala bokk na ci malaayik mooy boo xam ne bi ku vigilant la kon bi maanaa angle bu nekk am na caméra kon sañ bi caméra yàgg na caméra surveillance yi ak yàgg mu dem ne Banjoli xam ngeen Banjoli mooy picc la moo xam ne bii ne boo ko dem ci ci palais yi lay nekk mu daal di Iblis wóolu Banjoli ba mu ñëw mu ne ko man de bëgg naa dugg àjjana am loo xam ne bii tey boo fexee ba ma àgg fa tey yow dootoo dee nekkate dee kenn bëgg ko mu ne ko ah, loolu dëgg la man de am naa six bu toll ne tey fii am naa liberté lu fu ma neex dem fu ma neex taxaw yàlla may ne ma ko waaye man merwaan mii nga xam ne mooy vigilant xoolal kenn mënu ko jaat ndax lépp am caméra la waaye iblis ci xereñ ci xereñam daal ne ko wool ma jaan jaan bi maanaa wool ma yeew ndax yeew jaan la mu ne ko boo demee da ko ne ko am na waaju ne ci bitti moo ñu gën a xam fii nga nekk ak fii ñu nekk ñun waaju rafet la ku yéeme la nee na am na secret boo xam ne bi ku feex ku fexe ba mu dem ba ba nga wan ko ba mu wan la ko dootoo dee ndax dee kenn bëgg ko jaan na ko ah waaw mun ko nag ñëwal jaan topp territoire topp territoire ba génn àjjana wala ba boppi ne ci biir aji biit àjjana mais genn gaa ngi biir iblis na ko da nga def mun ko man mun ko man de li la waa ji wax dëgg la am naa secret ba tax du ngeen dee mun ko ah man de bañuma ko waaye de merwaan mële borom caméra yële lu fi nit def gis na ko mun ko xam naa ko waaye nag benn laa lay ñaan yow jaan ŋaal nga mooy ŋaa ba gimi ngi yaatu Iblis soppali ngelaw dugg ci biiram nekk nag dugg naa duggaate bi ak àjjana continuer yoon gauche rek côté yoonu gauche soo demee ba jóg fi fi a fi aadama nekk su ma yëngatoo rek mooy da ngay ŋax ma génn xoolal yow ni muy def yow ni mu tuuti lu tax mu mën a wan loo rëy fii la déparé ndax lu ko yàlla may la bi mu ñëwee ba xam ne fii aadama nekk rek fa la yow yëngatu ne rek yow ŋaa rek Iblis génn soppali ku nekk nit ku nice mel ni koo xam ne bi jardinier nga wala ko nekk ci biir ajjana nga fekkate awa gé awa nga doxantu promenade ah ok Adama mu ñëw ci awa ne ko na nga def mu ne ko maa ngi fi rek mu ne ko ànd ki nga àndal mu ne ko dem mu ngi wëndeel mi ngi seet bi biir tool tool bu naaj bii am nax ajjana lépp rafet mu ne ko waaw yi nga baal ma xam nga lu tax yàlla ne wër leen ajjana te bu leen fi laal dara da leen di nax da leen di nax yow aadama yëgoon ne ñu ngi ñu ngi sa ñu ngi lay eh, awa yëg nga ni sa jëkkër mi ngi bëgg am ñaareel kon ñaareel kenn bëgg ko jaara jaara déglu na fii de mënu ko nga ne mënu ko aw mu indi benn bool comme magi magicien yi indo dañuy def dañu jël benn ni nii rek soppali nit muy nit ci biir ndox mi di gis xale bu rafet gën ko rafet moom mënu kii lay lay waaje takkal waaye gis nga boo daggee ci garab gi fexe ba nga ba ba nga lekk ci tuuti jox mu lekk c'est fini la la ñu yàlla doon tere la ko defloo bi maanaa nit léeg-léeg sa mémoire absenté ndax lan ngay fàtta lay dëgg ga indi li ñu lay naxe foofu dama ko ubbi rek foofu nag ba mu ko fexee ba ba seex ko moo waral jigéen di indisposé waaye nag aadama mii bi mu demee ba ko seex li yàlla na ko yaa aadamu bu ko seexoon rek day indisposé góor day bi ko yàlla gën yaa aadamu rek moo war a mun a ah, mu war a tey góor am bulux mooy lii ci nii ndax agut dama ko dagg rek pour ñëpp bàyyi xel ne lépp pexem seytaane la euh, jaara mm-hmm. yonent yi fii nekkoon yëpp ku ma saan def agression wala nekk ci lu neexul yàlla yàlla day jékki-jékki rek bu yonent bi ñaan rek yàlla alak ñëpp dee tout le nag tey kon war na Sénégal kon fu ñu ndax lépp la ñoo ñu doon def te lu yées la ñuy def tey mais yàlla ak ñu muñale ci kaw muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam na yàlla na rasulullah man rus naa ci saw xeet ma di leen alak waaye nag alku bi mën naa ko garde ci kaw yu sew sew yeneen dal comme ay bateau joolaa comme saxaar ga daanu woon comme ay musiba yi am ak comme mën meeg jéeri jéeg yépp am na waaye nag yàlla ne dama leen bàyyi ba yomal xam ndax rus naa rasulillah ndax lan bi ma ko joxe julli ñu bëri gi julli bi ma ne ko woor la ñu bëri nga woor bi ma ne génne asaka ñi ñu góorgóor ñu ngi koy góor ñu ngi koy góorgóorlu ñi séq ñekk ak mbaax di dem leen te tey dimbalante nee na lii moo tax alaguma leen mais kenn war ko ruuru rasulillahi sallallahu alayhi wasallam borom guddi gi ñëw loolu nag moo tax mu ne sallallahu alayhi ne kon nag ma ñëwaat ci beneen version ñett parce que juróomi version la yonent yàlla Muhammad mii nag ñan ñoo ko iñaane woon ba tey bëggoon mission am ñu ñu gàllankoor ko waa mbokkam yi waa màkkatal mu karam ñoo dem ba xam ne kii mi ngi yàq suñu affaire ndax lan yéeféer yi néew caaxaan lu dul gëm gëmloo nit ñi xërëm def ay dobi ay ak ay diil léegi nag ñu ne nag ñoom comme bëgguñu koo rey ma ne ko sàkkal pexe ba wuy ma ngaa la ba du ko tal xam nga dégg ñu ne am na agression boo amul fële sama koñ ginnaaw raay ndax nag ginnaaw raay lu dëkk nag ñu ku nekk fa nga dëkk bu ko bañ mm-hmm. du ñëpp bon nag ay borom xam-xam nga fa man ca laa bokk ay imam nga fa ay professeur université nga ay médecin nga fa ña fa baax bari na dëkk boo gis rax am na waaye dëkk boo fi jikko am na fa loolu nattu la rek na yàlla def mu jeex takk te ñu ngi daañu ci taxaw nag léegi nag ñoom ñu daje nag gisanteeg benn jigéen bu tudd ab lu biitu bintu asmim benn femme la boo xam ne màkkal nekkoon ku mën a jabar la woon jabar moom ku mënoon xërëm ñoo ñëw ci yonent bi ñoo ñëw ci xërëmkat bi ne ko kii day doomu Abdalaay ji nekk kër Abu Taalib bii nekk màkk dëgg sëtu Ibrahima la fexeel ba nga téye ko diggu lu baax ba dootu dootu ñu mënal dara maa ngi dégg ñooy agression bi am dañu kon jublu juñ ci jublu woon dee mais nañ ko gàllankoor dégg version bi mun ko ah mun waa mun ko fexe leen mu indil ma karawam kon jaara mm-hmm. amina mm-hmm. ngaala honorable fu ngeen di wotoo ne ngeen koy xool su ngeen di watooti watooti yéen ñëpp ñu ma déglu seen watukaayu yaram karaw di xool fi ngeen di watoo jana sa ngeen ëmb ko yóbbu ko ndax karaw jàpp ci nit moo gën a gaaw loo gis ndaw si ne indi leen ma karaw Seyduna Muhammad ma am lu ma ci def do bu def bu génnatul dootu ko tal ñu ne ko karaw Rasulillahi sallallahu alayhi mu am ci ay jatu jinne yim ci woon def na ko mënoon lool la ndax fa àndoon ak jinne muy jat di jat di jat di jat di jat ba yàgg fas ko ci sagar bu xonq ne jël leen ko yóbbu ko ci teen bi gën a xóot Makka ca jarwal bu ngeen ko gasee dugg ci tool ci teen bi jël birig teg ko ci sëf ko bu pas-pas bi tooyee rasulaay dootul man dara nii lañu def mais yant mi nit la comme ñun mais daf ñoo gën yàlla di ko seetaan am yàlla jàngale bi ba ba ba ba saafara bi tooy yonent bi commencé ndeysaan tayal yàlla xam ne nag yonent bi bu bàyyee dem jàkk ja ba ñu gën a waaraate gaa yi dañu découragé yàlla ne jibril demal nga ne muhammad rasulullah fa mu tëdd bëgg naa jóg mais mu tëdd ndax dañ koo sëf nekk bu jàng qul a'uuzu bi rabbil falaqi wa qul a'uuzu bi rabbin naasi boo déggee ñu naan fa inna inna fasaati fil uqadi uqadi mooy pas-pas woowu baa ji bu yox ndax su weex yox ne ñu fas yàlla na ko na tari fali xeeg xëpp ko ci yaramam ba ko taree fali xeeg naasi xëpp ko ci yaram rek gàllaaj ba ca teen ba dana tël comme grenade yéen itam lu bëri ñaq ah kon sëf yàgg na ku xeeb ku xeeb xarfa xuufa xarfa xuufa na la fuuf bi maanaa kon addu aw silahul mu'min nit ñi ne ut ngànnaay ñaan ngànnaay da leen ut gàllaaj ngala koo dégg xam na rimb xam nga ah rimb da xamu leen ko waaye honorable xam na xam nga lan mooy rimb ut leen tul ay wolof laay wax uti leen tul rasulaay gën ñëpp wallahi moo gën ñëpp sallallahu alayhi wasallam ba ca Madina waaye boo xamoon tey xam-xam bi jamono sunu maam yi xam buy dem xarabara da koy takk laaj ma lu tax lan tax rasulaay dem xeex jël gilet de balle mooy bu la jaasi dagg mooy gilet balle kon bu xamul lii kay da koy takk comme nag mag ñi dañoo nekk doon xeex di di rimbalu wala jame jaasi fitt du dugg lu tax tey ñu bàyyi suñu yaram tey mu nekk désarmé wu ba kuñ jam paak mu dugg ndax bàyyi la fi lu maam yi nekkoon nañ uti tum waaye comme ne am na ñoo xam xamatuñu ko ndax ñi naxaa bëri na yam leen ci aaya bii may wax ci suuratu yaasin wala ca baqar xam nga li may wax summun wa bukkun bukkumun wa umyun wa hum laa yubsiruuna allahu akbar summun bukmun umyun wa hum laa yubsiruuna e fa axsaynaahum fa hum laa yubsiruuna boo gisee ay bandi ñëw agresseur jëlee ci suuf si ne fa axsaynaahum fa hum laa yubsiruun ma ngi ci suurtu baqara boo leen ko ëppee ëpp duñ la gis summun bu ma gis umyun bu ma dé umyun bu ma dé umyun mooy ma gis summun bu ma déglu fa hum ñii ñëw ba agresseur yi laa yubsiruuna yàlla bi ma seen waaye alxuraan moo daan gàllaaj lu tax duñ ko def bi ci des doo ma ko laaj Cheikh na Tidiane al Maktoum yàlla ñu ko yàlla fayal Cheikh na Tidiane al Maktoum moo doon savant bi mujj ci àdduna bi Cheikh na Tidiane al Maktoum bu sëñ Babacar Sy bu Seydi Hadj Malick moo doon savant bi mujj àdduna bi ñun ba ñuy gone 1978 booba ràññee nañu lu masaan def conférence feeñ na 2000. lu mu fi waxoon bu yàggut ndëppalu leen Sénégal ah ay si balik su ngeen ko nëppal de dana ko nëppal ñaata agression am ñaata ñooy rey nit ñaata ñooy complot ñoo moo ñoo mus sa xalaat ñooy rey sa xarit rey sa xarit rey sa bali xoolal bërki dem gis naa ko jël essence sotti ko bàyyam taal ko muy tàkk laa ilaha illa lu ko waral jinne yu bon yi ci àdduna adduna ba nekkoon Asie ñoo ñëw Sénégal jinne yi bon bi ñëw Sénégal jaar ñu ci jaw ji ci géej gi lañ jaar li ëpp ci bateau yi ñoo ko tu dëpp man dama waxoon tu ah. ñu ëpp ci bateau yi jinne yooyu ñooy xar bateau yi ndax ci lañ sacrifier deret lañ soxla ndax deretu nit jamaale ci ñoom moo tax ma bëgg ku bëgg mucc ñoom ku bëgg mucc ñoom del julli normal ku bëgg mucc ñu ñoom del woor ku ñu ñoom des set tey lekk lu lew nit ñi jullituñu wala bëritut nit ñi wooratuñu bërituñu nit ñi sellatuñu dañuy njaaloo nit ñi dañuy lekk aral ju haram waaye fu nu ñu mën a am sécurisation non may ñaan tabaraka wa taala inna aksara naasa la kaafiruuna ñu ëpp ay yéeféer lañu inna aksara naasa la kaasimuun ñëpp ay fenkat lañu waaye inna aksara naasa la na ñu bëri ay naafiq laay mooy naafiq mooy allahu akbar dem Tiwaawan dem Touba allahu akbar yu rukus fekk tey boo sañoon tey ki nga nekk mu dee kon di ñaan yàlla subhaanahu wa taala naafiq nag Madina la commencé ci Abdullah ibnu Salum waaye yëfër mag la xewe ndax dañu weddoon yàlla mais ñii nag dañu ne nag ànd nañ yàlla di firi comme yow di noddu comme yow solu ba rafet te buñ sañoon nga faatu kon li may ñaan tey mooy agression yi am dal si ñun ndax ginnaaw raay la dëkk nattu gënu ko réy Aziz bi gaañu du ma ne miin naa ko waaye xam naa ko ku bëggoon julli la ku rafet xol la woon danaa ñëw suñu maire yi kafkat la woon bu romee bala moo dem ñëppay reelu kon lii dal ci kaw man li ma metti te naa ko nag ma ma bëgg mu si l'intérieur mu si l'intérieur munu ma nangu nit ne ci appartement di yuuxu vaccin kenn jógut ñoom ñëpp da leen war a jàpp ndax bu ñu teeloon daj daj daj atte atte leen lii du xew nekkuñu Europe. Sénégal yi nekk département bi lay nekk kon agression bii fa may jeexalee jaara mooy nañ ci jóg ñi war a jóg jomaay gën a baax yàlla tabaraka wa taala dée gi ëpp na jàpp ay nit comme ay kaña gën a baax yàlla ku defa ci mel ni yóbbu la stade dóor la bala ñëpp gis topp ay ONG yoo xam tekku ñu dara lu sa ay ay ay neef yàlla parce que yow mi bëgg sécuriser sa bopp koo rey ñu jàpp yóbbu la te kilo la war la war a rey mais ban réew la ñu nekk fuñ ko teg muy mujj fi sax Rasulullah waxoon ci jaw ca congrès ba mu ne sababul mu'minu fusuqun eh les jeunes musulmans éviter leen génn seen gémmiñ lu ñaaw ñaataay saaga sa sama sët sax da naan góo koo romb ci mu dëgg mu ngi lay saaga sa ndey Rasulullah kon sababul mu'minun ndawal musulman fusuqun moytu leen génn lu ñaaw mooy saaga mm-hmm. ñu ne jaarale ca gën a garaw. mu ne waqitaaluhu kufrun mooy agresseur yéeféer la ndax ku jël ja paaka ci ko rek mooy intention rey nga nit ñu neen ku jël yar dóor ko nit da ngaa bëgg mu làggi kon di ñaan yàlla tabaraka taala yàlla yow mi gindi nit yàlla nga def sunu xool ñuy waaraat ñun di la vérité bañ a naxaate kon naxaate yëpp mooy man demoon naa ci dialogue bi passé ma bëggoon dialogue ba la ma fa wax nañ ko appliqué nañ def nañ def Fongore Fou Malade mi ngi may seetaan ministre de la justice ngir seetaan ba mu jël parole la ma waxoon tey dafa mel ne am ma ne fii teguñu ci dëgg te bañ par parloo réew mi ci yàqu la jëm ñi ngi julli di woor du la ñu koy def mais lu tax agresseur bu agresseur tool lu tax ñun ñëpp duñ jóg mars sëriñ si lu tax ñu mars imaam yi lu tax duñ jóg mars te benn nit yàlla nee na ku ma reyal benn nit te tey ko dafa mel ne rey nga monde bi man qatala nafsan waahidan la wax fakk annama qatala naasu jami'an kon mbokk yi may bëgg ñun ñëpp monsieur le président nañ dëpparaat réew mi ndax sunu maam ju baax ca xutbu samaan boo xam ne ko mun Seydi Xasan Malick muy kan Cheikh na Tidiane al Maktoum aussi ah, Malick yàlla na yàlla fayal la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jaajëf merci beaucoup yaa Seydi defati na def euh, ti nga euh, sa meneen wax naa euh, actualité bi nga xamante ni.